Dame Badiane président M6 la clé développement du Sénégal secteur informel M6 boo ko déggee mooy kuréel bi nga xam ne dañ koo boot pour bi nga xam ne seen loxo dafa dutu seen ginnaaw te desal gannaaw bi nga xam ne desal nañu ko gannaaw oh, mu yàgg lool loolu moo taxoon ñu portoon combat bi pour jéem a ci élection yi nga xam ne moo doon 2024 bi ñu romb yàlla lu waral ñu dajee fi mooy marché ambulant yi nga xam ne ñoom laa jiite ci marché Petersen euh, dafa yàgg depuis BRT bi léegi dafa dañuy dund dund boo xam ne dafa yàgg loolu te métti euh, ñi jël ay paaka du ko jam ci suñu bu ne du ko muñ ñu ciy def liggéey boo xam ne yàpp na même bu ko état xamoon dañoo war a féliciter dañoo war a encourager waaye dañoo gis ni heure bu nekk rek ci ay coono yoo xam ne yi métti lañ ñuy teg te ñun bokku ci ñi nga xam dañuy xeex tojo ka yaq ñi non nañu opérer bi pour waxtaan ak ñom état bi fi nek dégg ko ñu jëm a xool solution bi nga xam mo am ci marché bi ñu jëm ñu ko defaree euh, lu xew moy 4 mois ci gënaaw presse bu Dakar bi nga xam tay mo fi nek jëron nañ fi suñuy bagage yo xam man yoguma ci dara kenn informé wul ñu yobone ko ci allu yeen bi dañ ko yobbo njaboot gi ne ku nekk fayar nga douze mille pour mën a jëli bagage yooyu lu bëri saaw na lu bëri yàqu na image yaa ngi fi euh, bañ bàyyee ko ci loolu ñu foog ne fa lay yem mais heure bu ne mii gën a tar heure ba ne mii gën di métti commissaire bi nga xam ne moo fi nekk Rebeuss euh, di ramasser suñu bagage dajale ko foofu ba mu bëri ñëpp ko ca camion encore waat ko ba nii xamul fi ñu fan lañ ko yóbbu te ba léegi jotaguñ ci ba may mujj wax ak moom rek li ma wax mooy bagage yi nañ ci génnee suñu xel. ma jàpp ne moom jotuwut ak bagage yi dara te 2002 ba léegi maa ngi Petersen commissaire centrale yàgg nañ du ñu ramas mais heure bu ñu ramas bu ñëwee dañuy fay contrôle ñu jox ñu suñu bagage rëbës nañ du ñu ramas mais ñoom tamit heure bu ñu ramas woon bu ñëwee dañuy fay contrôle ñu jox ñu suñu bagage mais gis ne dañoo gis ne commissaire ba mu nekkee ba léegi dëgg-dëgg bagage yi nga xam ne ñu ngi koy jël du ko yóbbu mënuñ cee jot. loolu daal bëggoon na ñoo xam fekkee luwaawu Sénégal da koo tënk ñu xam ko ni man cee génnee suñu xel su fekkee ne luwaawu Sénégal parwaaru ko nag ñu ngi laaj état bi maanaam lii ñu jëm ci jël ay misir te ñu ngi jëm ci wewu tabaski boo xam ne askan wi xale yi dañoo war a liggéey te ko ne xam ne tabaski événement bu mag la te ndaw ñi instant bi ñu ngi toog cinq amuñ fenn fuñ jëm ñu doon interpellé te ñun ñu am ci ay xalaat ak solution yoo xam ne tey bu ñu si dégloo buñ ko defee Sénégal danañ ci état dana ci yëg boppam yëg suñu bopp population bi Sénégal yi suñu bopp ndax gis nañ ne condition yi ñu dund ci cadre de vie bi di dàqante ak gars yi tey suba ngoon jàpp naa ne lu war a jeex la te gën a luñ monsieur le maire nag suñu ministre suñu maire dëgg-dëgg mënuñ def dara lu du encouragé ko du ko ñaanal ndax lu ne defal nañ ñu ko te lu nekk defal nañ ko ko waaye dafa am lu des mooy njabootam bi ñu ngi souffrir ñu amoon benn site boo xam ne ñu ngi ci gannaaw bu fekkee même bu fekkee ne place yi parewul esplanade dinañ ñu ko ubbil xale yi dugg fa mën saa jaay mën a am dara loolu rek la ñuy ci moom boo gisee nag ma ma sonn mooy bu fekkee dañ laa jiital yaakaar la wax dëgg yàlla war nga di fexe def tout pour lañ la yaakaaree nga mën koo réussir. ko xaymaa si xaalis ñaata la ba pare ñaata loolu kab yoo ba mu soo ko xaymaa dem gàtt gàtt war na toll ci douze millions fu mu nekk dafa bëri. ci camion lañu ko yeb yóbbu ban nii ñun xamaguñ ban nii xamaguñ fan la bagage yi nekk dafa bëri mënuñ ko wax dafa bëri maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ jël seen bagage dafa bëri te premier premier fois rek quoi te ñaareel bi kuñ tëpp kuñ ci jàpp dañ la téye foofu deux trois jours quatre jours fayaloo la six mille francs door laa bàyyi maanaam docteur yooyu nga xam ne ñu ngi koy mu métti trop loolu lañ bëgg mu jeex xulóowul xeexuñ defuñ dara ndax mën nañ ko nag comme ni ko ñëpp defee ku ne gis na ne Grand Yoff ak Thiès bañ leen tegee coono rek ci suba sa rek gis nañ ne ndakaaru yëngu na te ñun loolu ñoo leen ko dàq buñ gisee Petersen nag problème di fi am ba léegi te duñ gis dara am fa war nañoo laaj seen war nañoo laaj seen bopp lan moo xew ba Petersen démb lu xewoon ñu ne Petersen te léegi Petersen di woote jàmm heure bu nekk kon nag dañu am jiit boo xam ne jàmm lay bëgg te moom lay dox te moom lay oo ñi fi nekk tey jàpp ne lépp mën nañ ko am ci waxtaan loolu moo tax bu nekk ñi ngi jiital loolu te solution bi nga xam ne am nañ ko ci réew mi secteur réforme nag bu ñu ci état bi dégloo danañ ko ci teg ci yoon woo xam ne yaakaar naa ne bu amee rek réew mi danañ nekk ci jàmm incha allah